delluwaat di nuyu euh, képp ku nga xamante ne bi euh, safoo nga RTS 2 euh, canal 5 bu xam ngeen ne nag ñi ngi ci état bu Ngor bi nag te nag mbokk yi ñu waxee Ngor am na ñu yaakaar ne l'île de Ngor dafa ci am solo bu baax a baax parce que l'artiste bi nga xamante ne bi may mun a recevoir on na ko monsieur Diallo nee na l'île de Ngor appartient à tout le monde alors on peut le comprendre parce que Mashallah, dans euh, daal euh, parce que bokk na quand même ci patrimoine Moi, qui suis ñoo ngi euh, sant di gërëm bu baax ci état bu ngor plage bi nag beaucoup de plaisir je ngi nuyu képp ku nga xamante bi yaa ngi fi toog waaye nag di sant ñi nga benn balade en mer et je vous assure que c'est agréable et encore une fois nous habitons dans un très beau pays presque du Cap-Vert nak nekk na presqu'île bu bu nga xamantene bi machallah nit ñi xam nañ ko te nak visiter ko sa su daf ci baax mbokk yi euh, dañuy ñëw ak yeen nak euh, ci tam tay bi tamtam vacances ak euh, madame gay Maymouna Sy saa su dañuy contane di and ak mom jot nañu dugg ci historique bi bu baaxa ba waye nak nag dina am yeneen image ak yenen extrait yu nga xamantene bi mbokk yi danañ ci cofaat ak mom pour nak wéyal li nga xamantene bi moy information ñu wara mëna jëlé fi ci Ngor

Euh, bu ñu jógee ci loolu dañuy ànd ak yéen nak ci conseil pratique ak suñu xarit maman Dieye parce que nak ci vacances yi dafa melni ay conseil nak war nañ ko mëna joxé parce que lég lég nak mo am ay mbir yu nga xamante da fay xew te sa su ne duñu bugg par exemple ci géej gi muy euh, renouveler wu bu nu euh, jógee ci loolu dañuy jeexal ak ki nga xamante bi moy suñu xarit Khady Didy la Saint-Louisienne ci li nga xam mom moy météo way nak tam ngeen ko min ngeen ko ki nga Malcolm ci électron libre dina euh, vraiment euh, les populations. On recevoir monsieur Nyombe Sambe, euh, professeur maître nageur alors monsieur Samb dinañu jokk ak dans quelques instants macha allah euh, euh, j'espère que dina dina fi jógee rek meuna a en tout cas lata loolu damay nuyu bu baax a madame Gay. Maymouna si. alors Maymouna c'est toujours un plaisir pour moi de te recevoir te nag kontaan parce que gis nga Maymouna Dakar ni mu tàngee gis nga fi ma tok ni ak ak ak ak tour en bateau bima def sank macha allah air pur d'al. euh, jarna di humer comme on dit mangi lay nuyu di la dalal jàmm bu baax maa ngi lay fay Yakham ah. euh, di la nuyu itam <laughs> nuyu suñu invité nuyu téléspectateur yi nga xamante ne ñu ngi ànd ak ñun ci Tamtam vacances ci étape ngor bi euh, ni nga ko waxee sànq nag euh, noonu la jar na jóge Ndakaaru <laughs> taal sa oto wala nga jël taxi wala nga ut auto bu la indi nga ñëw ba fii ngir humer air bi nga xamante ne instant yi ñun ñu fi toog di ko nooyi rek ñun ah ñoo leen ko mën a wax absolument voilà en tout cas c'est <laughs> magnifique ñi dëkk Ngor nag ñoom xam naa ne ñu ngi ci jàmm ak salaam waaye ci biir loolu mbokk yi dañuy nuyu euh, vraiment euh, suñu euh, professeur maître nageur di Ndiambé Som monsieur Som ñoo ngi lay nuyu vraiment di la dalal jàmm bu baax a baax ci plateau Tam Tam Vacances di kontaan di feggoog yow parce que nag Euh, dafa mel na euh, li ñuy wax fay am na solo ci doomu aadama te jàng ko it am na solo ñi ngi lay dalal jàmm bu baax a baax kontaan nañ ci dalal bi ñu waa Ngor yëpp dalal bisimilah mina seytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim mhm. euh, di leen nuyu di leen gërëm mhm. nuyu madame Guèye mhm. yaa xam di la nuyu leen jox ma occasion pour que ma mën a wax si lépp loo xamante ne moo jëm ci ngor si kom kom koom-koomu ndox mhm. euh, muy île bi mhm. nuyu aussi euh, ñi nga xamante ne ñoo nekk ci plage bi mhm. te ma bokk ñoom liggéey bi nuyu kilifay ngor yëpp parce que ñoom ñoo ma fi yebal muy coutume bi muy religieuse bi ñoom ñëpp euh, ziyaare leen te di ñaanal comme ni nga ko waxee léegi suñu maam yi nga xamante ne tey jii ñoom ñoo ñu tànnal ngor am nañu fii muy bakkanu Afrique mhm. muy bakkanu aduna bi mhm. teg ñu fi vraiment ñu amal leen jukal ñaanal leen ñom yalla xaare leen àjjana parce que ñom ñep ben ñi ñu ko tànnaloon vraiment muy milieu bi gëna neex si si Sénégal. très bien en tout cas ñi ngi aussi euh, nuyu borom dëkk bi euh, parce que yakana ni ku ñew ci dëkk nak war nga nuyu borom dëkk bi euh, encore une fois alors May. Euh, dañuy dem nak xooli wat ay image euh, parce que euh, lañu mën a wax encore ci histoire surtout nag île bi danañ ci ñëw kon nag ma laaj waa régie ñu dellu jox ñu image yi bu ko defee ñu wéyal li nga xamante ne bi moom mooy waxtaan bi ñi nag muy ay image yoo xamante ne dafa concerner discipline boo xamante ne daanaka mun nañ wax ne discipline sportive la ah. suñu invité di ci yëngu muy aquagym buñ ne aquagym nag dafa nekk loo xamante ne da nga nekk ci biir géej gi di nga sangu wante di nga ciy jëlaale itam euh, wérgu yaram amaale si tamit lépp loo xamante ne dafay améliorer sa santé comme ni nga ko gisee gis nga monsieur Samb moo nekk noonu jiite ko nag muy exercice yoo xam ne dañ koy faral di amal fii ci plage bi ay mag di ko def ay xale itam di ko def euh, gis nga ci ambiance bu neex gis nga jigéen ñi itam dañuy ñëw di ko def euh, loolu lépp nag pour jàng fay ci ñenn ñi nga xamante ne mënuñu ko wante ci ñeneen ñi nga xam ne mën nañ fay ba pare pour ñu maintenir seen forme baax na si trop gis nga ko ay exercice ñu faral di def mais ci biir ndox bi euh, lañ koy défé ñu wax rek ne fi ci plage de Ngor bi ni monsieur Niamé Sam mi nga xamné mom professeur la formateur de maître nageur ak sauveteur moko fi faral di def mat ay at légui di ci and ak euh, ñi nga xamné dañuy faral di fréquenter plage Ngor bi ni mhm. euh, ya xam li ci ay image la yo xamantene ne nañ ko fii di tamit benn point bu stratégique ci Ngor gi nga xamné man ko doon wax

Euh, euh, vraiment euh, dugg ci géej wala def sax aquagym bi alors que je pense que il y a quand même des techniques yu nga xamante bi et puis du du est-ce que man mun naa commencer aquagym mais mais mënuma fay ah. wa aquagym moom soxlawul man fay. ah wa soxlawul man fay mais nek nek na lo xamantene ne. déjà so mënul fay so duggee ci biir. Mhm. luñuy wax parce que boy jang fay il faut que nga commencer luñuy wax familiarisation. d'accord donc je nga familier la ñu familier la ak ndoxu bi. Ah ah. Euh, donc c'est avantage et puis bon bu jógee ci loolu mu nekk sport boo xamante ne euh, vraiment amul mak amul ndaw. parce que boo euh, toujours pratiquement danaa recevoir au moins. 300 personnes, même voire des fois plus. 300 personnes. Et puis, oui, même des fois plus même. Et mak

Gage ak piscine beaucoup. c'est encore mieux. oui c'est mieux parce que vertu yi am ci géej amul piscine. parce que piscine du loo xamante ne dafa naturel. Euh, bon yàquma dëru piscine. Mhm. mais da ngay la piscine boo si duggee surtout ñun au Sénégal respecté ñu tellement piscine. oui da ngay gis ku jóge fële euh, sangu mhm. doon liggéey y naa dem piscine dugg ci piscine bi ak sa short amul ban réglementation te piscine dafa am règlement dafa am. réglementation oui ça ça je pense que dafa am réglementation. Ah, alors c'est hmm. vrai que May. Euh, c'était important surtout notre petit hmm. vacances euh, May mun a euh, vraiment li nga xamante ne moom la ñu gis muy aquagym. xam naa ne loolu yëpp mbokk yi dinañu ci ñëwaat waaye nag di fàttali mbokk yi ne ñu ngi fii ci plage Ngor bi jàkkaarloo ak l'île de Ngor alors May c'est vrai que am na yeneen image yu nga xamante ne bii indil nga ñu ko aussi euh, pour ñu continuer li nga xamante ne mooy waxtaan bu am solo euh, bi ñuy euh, def fii ci Ngor Maïmouna si ni nga ko waxee rek dañu continuer ci lépp li nga xamante ne dafa ñeelo historique Ngor

fii yàlla dafa dogal ñaari géej ak ñaari jigéen yi géej gu gi géej gu jigéen gi fii lañ daje boo demee ñu koy wax Tunda King Fahd Place boo ko jàppee jëm ba Pointe des Almadies loolu mooy Tunda nga ñëw ñu ne la xënga mooy mameel te boo ñëwee fii ñun suñu maam dañ ko wayee borom Tunda borom xënga góor gi baase ñayu ngor xeeru ngor la ñu gorgor mute indi ka kàngas loolu soo ko déggee uh-huh. góor gi baase moo tax ñu ne borom Tunda borom xënga

fal ko naka jogalal ngor nga dem parce que les les dëkk yi ngor tànk ngor wakaam yoof ba dakaar ba région lébu yëpp dañ daa daje mais toujours daawuñu wax ne borom ngor dañ naa jogal ak ngor jogal gi mooy moo waral ñu naa turu jogal bi mu yàlla def nag bi nga xamee ne ki leen ci ñëw na nekk fi nekk jogalu ngor moom lañ jëkk fal jaraaf moo jëkk falu jaraaf ngor ay jaraaf ak yooyu xamuñu ko woon ay jogal rek lañ daan fal mais ki leen bi nga xamante ne ñëw na nekk jaraaf yàlla dafa def mu am ñaari soxna te ñaari am yëpp jaraaf lañu comme moom mais xeetawul ak ñoom lébu dañu am fukki xeet ak ñaar su fukki xeet ak ñaar yooyu dañu jël ñetti xeet daal leen fal muy xonq bopp muy waneer muy jaasiraatoo mais ki leen dëkk samp moom di waneer ñaari soxnaam yi kii di xonq bopp kii di jaasiraatoo donc moom cër bi mu am ba mën a falu jaraaf ay doomam dañ ko am ay doomam yëpp ba ñun li fi mujjee muy bàyyi El Hadj Ablaye di bàyyi chef du village bi fi nekk moom bu dul bàyyam sax néegu ndeyam da koy fal jaraaf vu El Hadj Samba moom bu dul bàyyam néegu ndeyam da fal jaraaf yaa ngi dégg boo kilo ndëkki Samba loolu moo taxoon dafa doon bañ affaire bi rëcce xam nga léegi boo toppee néegu ndey rek da ngay dem ba ku sant ba ñëw yilif ngor wala ku sant sëy ñëw yilif ngor loolu lañ doon bañ moo tax moom mu téye si ak njabootam gépp yoof moo mag ngor mais ngor moo mag wakaam ngor ma gën a wakaam un an Yoff magee na Ngor 49 ans magee Wakaam 50 ans waaw may Maimouna nag euh, euh, gis nañ euh, vraiment la nga ñu indil te mhm. defe naa ne ay mbirum jaraaf ak yooyu foog ñu ñëw ci waaye nag tey incha allah bu ci kanamee ak monsieur dina dinañu xuus bu baax a baax a baax ci île bi parce que nekkoon nañ ci ay gox dama doon cof di cof rek waaye te ne dañuy ñëw nag ci île bi nag <laughs> île bi moom dafa bëri ay mbóot bari na ay secret am na ku ma ne sax am na benn partie boo xamante ne waaw boo fa nuuroo ba ci biir mën nga faa gis lu kéemtaane. ah ma ne ko ah bon mu ne ma mën nga fa sax gis ñu toog yar seen kurus di ñaan. ah waaw.

mais ci seen biir taarix ñoom seen histoire. am na benn instant boo xamante ne côté matrilinéaire don ci côté yaay. dañ doon jëlee ndono gi. d'accord waaw après ñu dem ba ci biir nag mu am soppi buñ ci def parce que bu fekkee dañoo topp tànk boobu noonu. mën nañ dem ba keneen koo xamante ne neneen la sant wala bokkul sax amaana xëy na ci sant yi nga xam ne ñoom ñoo war a toog ñu ñëw dugg si. loolu bokk na ci taarix yi.

Euh, parce que nak euh, faaw ñu xuus ci li nga xamanteni mom moy mooy île bi ay mode yu béré béré ñoo nga fa euh, foog ñu bokk ak téléspectateurs yi vraiment information yi nga xamanteni bi monsieur Samb daf ñu indil ma bàyyi monsieur Samb May. waaw yaa xam ni nga ko waxee noonu la foog ñu ñëw xuus ak moom ci domaine bi nga xam ne da siy yëngu surtout que dañ nekk vacances te nit ñi seetlu nañ ne fan yi noyade yi cas de noyade yi mu ngi commencé di bëri loolu lépp ñoom fii au niveau de Ngor mel na ni am na nu ñu organiser woo ba nga xam ne mën nañu paare wu ci situation yu mel noonu monsieur Samb yow euh, formateur nga maître nageur ak sauveteur maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy dimbali nit ñi ci ndox mi d'abord ma bëggoon rek ñu njëkkee ci fii ñu toog bala ñoo jéggi dem ci île bi fii nga xamante ne fii la ndax mën nga ñëw ak ñun ci évolution bu njëkk ba nañ daan jugee fi di dem ak légui ni nga organisé organiser. Euh, donc euh, euh, bu ñu la yegg fofu nga may ma tuuti rek si secret yi ñuy wax déjà. comme man fa commencé muy place ba may defee aquagym mu né place bo xamantene ne mag ñi ñoo fa ñaanoon. parce que Ngor dafa né dëkk bo xamantene en fait fu nit masaan a joggé soo feebaree soo ñëwee si mag ñi suñu ànd ak yow si géej bi suñ la ñaanalee soo diggee si géej bi boo wooññoo ko ànd ak wér donc man yàlla dafa def rek ma jàng tuuti njàngum tubaab su lu jëm si affaire ndox donc li nga xamante ne moo ne woon si mag ñi daal daan na ko daal luñ ma jox la rek euh, ma ñëw complété ko pour euh, ànd ak nit ñi def fa ak ñoom Sénégal yëpp tasa fi nag euh, war fi ñëw.

40 ans d'expérience 36 ans au sapeur-pompier et puis 36 ans yoyou, presque ma yoroon lépp loo xamante ne yàlla fu ma may may yor lépp loo xamante ne intervention subaquatique lépp lu jëm lu ñuy dimbaliwaate si bir ndox donc tey jii may former xale yi euh, ñu ne si plage bi donc boo demee Île dongor, Ngor bu ñu jéggee dem Île de sécurité bi ñuy wax am na fa bu mat sec parce que trois plages nous fa am trois plages yoy fa nekk plage bu nek am na maître nageur euh, xaw ma nu ñu leen euh, tege mais plage plage au moins y a 18 mètres nageurs te 18 mètres nageurs fu ñu nekk yaakaar naa ne jàmm moo ngi fa. Île jamais au plus grand jamais peut-être ñiy nebutu ku nëbbatu nak ñu réer la mais noyade bo dégg il de c'est parce que ba muy noyé dañ ko gisul wala muy noyatu guddou Ngor gi aussi depuis quatre ans man suis jël suma retraite jël mesures plage depuis quatre ans ngor amul de noyade ñaari noyade lañ fi am ñaaru noyade yoy ñu fi am bu si mujj moy de la et parents yi bu ñu mandi personne ivre la c'est euh, environ de 22 heures et le matin ma wowe na ah, am ko la bu ma ñëwee ak suma éléments yi même pas 5 minutes parce que am nañu expérience bu doy sax. cinq minutes la ñu am ñu génn ko. Mhm, donc loolu ñu koy sampé ménagères yi quoi euh, yaa xam d'ailleurs euh, sécurité bi muy wax fii la tàmbalee sax déjà balaa ngay dugg ci euh, li nga xam ne bateau pour traverser dem ci île bi c'est obligatoire ku nekk da ngay war sol gilet ku solu gilet doo traverser pour dem je pense que né déjà lolu benn point la bu am solo ci walu sécurité bobu non nga xamante teural nañ ko fi ci Ngor mais monsieur Samba aquagym bi nga xamné ne yaa ngi ko doon tudd sànq itam foog ñu wax ci parce que dafa nek activité bo xamné dafa nek ci île bi yaa ngi ko doon wax sank yaa former nit ñi muy ay mbak euh, muy ay ndaw mais euh, bëggona naa itam nga ñëwaat ci euh, li nga xamante moy bienfait vraiment parce que sànq tiof nga ci touti ne géej danaka peut-être bo duggee ci bir sax ndox mi rek bu la laalee am ñuy wax na ne bo ci duggee pendant un certain temps peut-être xëy na yéen nga xamné ay spécialiste ngeen di ngeen ñuko mëna wax sax exactement lepp lo xamante nang ko soxla ci yenn vitamine ya xam yoy ut danaka day dugg sa yaram bi directement. waaw loolu moom am parce que bo c'était les bienfaits de l'eau déjà bépp ferñeent boo xamante ne day na ci aliment. bu ñuy lekk mu ngi ci géej bi et ndox bi boo si sangu surtout période bi euh, nga xamante ne dafay tàng muy def au moins minimum vingt cinq degré booy sangu sa poor yi day ubbu ko sa poor yi su ubbu ko donc ferñeent yooyu foofu lay jaar donc maanaam loo xalaat muy euh, euh, bicarbonate potassium magnésium. ah oui. Euh, fer Le loo xalaat amna na ci et puis en plus euh, nit day son, comme on dit nit day febar. gannaaw ou le wax mangi mag ñi ñaan nañ ko fi nit day febar. ñu ñëw ñu dugal ko ci géej gi mu mais loolu lu koy andi mooy en général soo ñëwee si géej muy conseil déjà Waro ñëw rek nga dugg nga génn war nga def au moins 10 minutes dix minutes minimum parce que à partir de la 11e minute 11e minute bi si lay commencé faire yooyu war a mën a dugg sa yaram. te si biir géej gi dafa am loo xamante ne moom la wax ion négatif. Mhm. si personne bi aussi dafa am loo xamante ne moom wax ion positif. Mhm. loolu aussi maanaam day dugg si mirum euh, chimie muy loo xamante ne genre courant parce que il faut nga le positif ak négatif pour courant mën a am donc boo duggee si biir ndox bi nga xamante ne mooy jóge si biir nit ki ak bi nga xamantene moy mooy ci si biir géej gi ñaar yoy yi suñu andé day melni une batterie vide une batterie vide bo xamantene tay ji suñu la woyé do muy portable suñu la woyé do wuyu donc nga brancher ko soko brancher à partir de de 11 12 15e minute bi si lay feesawaat del donc cela veut dire que moment bobu li nit ki jëlat ay énergie pour mën dem loolu motax ku xey le matin mhm. ah war nga mën a ñëw euh, non seulement jël de l'oxygène pur et puis jëlalé euh, saison ions ion négatif bi nek ci bi sa positif énergie et puis voilà nga dem euh, solo xam euh, dina am dara lu ci wara bëla vraiment parce que je ne savais pas euh, qui avait toutes ces vitamines euh, ci biir géej euh, lu ñuy wax dal géej nek na lu lu kemtane lu nga xamante bi euh na war? parce que géej na mu rëyee terre bi rëyee ni rëyeewul alors mais on va xuus nak ci li nga xamante mom moy île bi parce que on a quand même besoin aussi de connaître l'histoire de cette île l'île de Ngor sank monsieur Diallo mi ngi koy wax nee nekatul nekkatul île de Ngor au Sénégal dafa nekk île de ngoru àddina bokk ci Sénégal bokk ci liy taaral presqu'île du Cap-Vert waaye nak faaw ñu ñëw ci histoire bi bu baax baax ak monsieur Samb bokki Mais fatali fàttali ne mooy suñu invité Tam Tam Vacances fi ci Ngor état bu nak plage bi ñu jàkkaarloog l'île de Ngor. Euh, Ngor île de Ngor lu ma ci mëna wax bari na bëriwul parce que avant euh, dem armée mën wax né euh, fii laa di même euh, si pirogue yi non laa voilà comme piroguier di yobu nit ñi ñuy dem île di dama ko ñew mais jamono yoyu pratiquement nit ñi ñi doon dem île presque wa dekk bi la woon ak euh, ay tubab ay libanais mais légui yalla def na bu ñu découvrir ko ñun sénégalais yi légui île bi pratiquement comme Nico ko Diallo waxe mu nekk ilu ñëpp ilu ñëpp ilu ñëpp la et boo gisee mu nekk ilu ñëpp bu jëkkoon nit ñi dañu ko ragaloon mais léegi sécurité bi am si plage bi sécurité bi am euh, avant ñuy dem île ba bi am si île bi nit ñi gis ngeen sànq avant ñuy dem gis ngeen ne dañuy rang suñu rangee ak discipline def naa loolu fii rek la am dañuy xëccoo kaar dañuy xëccoo kaar rapide mais fi bu ñu ñëwee dañuy jënd seen ticket taxaw rang ni ñu ñëwee noonu la ñuy yéege par ordre parce que xam nañu danger yi si ne. may maa ngi lay remercier di sant di gërëm it yi nga xamante ne bii euh, moom moo jaar saa su ne euh, ci euh, sañse bi ànd ak yow ci Tam Tam Vacances de Lamine Ara je koy mhm. remercier moom mu ngi nekk euh, centre de Bop, en face euh, rue 5 numéro téléphone di 77 557 52 84 ñu joxe rendez-vous rek demain ñu àndaat ak téléspectateurs yi ci beneen site fii ci Ngor li des ci question yi nag ma bàyyi ko sama naataango yi ñëw sama ginnaaw bu ko defee ñu mottali ñëw xam naa certainement wax ci canoë kayak bi wax ci ñi nga les icônes euh, ci côté sport fii wax ci dauphin yeeg euh, lépp daal loo xamante ne laale na ci wàllu euh, ngor yaxam danañ ci ñëw incha allah bu ci kanamee ak suñu invité ñoo lay gërëm di la sant waaye tamit euh, man tamit gis ngeen le le jeu de de chemise yi nga xamante bi madame Fatou Dieye ah defal nañu ko bu ko defee rek ñu daal di téye bu baax baax ci suñu bébé boobule ñu tuddee RTS 2 mbokk yi ñu ngi sant di gërëm bu baax baax canal 5 TNT ñu ngi fii ci plage Ngor bi du ma def rek lu dul daal di dem régie ñu de euh, recevoir qui nga xamante Sar moom mooy Léna Sarr ak ñun ci Actu Vacances euh, elle est vieille parce que d'une part sans dépenser ses compétence par exemple su est élève bi dafa mën togg mën nettoyer set, bon dégg français quand même mën na doon noonu Casamance laa jógee li ma tax a ñëw fii mooy maanaam damay ñëw liggéey ma am li may jëndee samay fourniture am li may inscrivé wu ak samay bagage yooyu noonu daal may bañ école bu tijjee may sonal sama yaay parce que moom nekkul di liggéey école bu tijjee damay sonn quoi bu jëndal lu ne moo tax école bu tëjee daal may am envie ñëw vacances pour liggéey ma am lu ma war a jënd. dama ñëw pour liggéey pour mën a am si lu ma lu pour mën a am lu ma jëndee ay yére ak samay fourniture ak yooyu noonu pour comme ça du ma mën a ñaan kenn daal damay liggéey am si am loo xamante ne nii du sama morom sol dinaa ko mën a sol am samay kay inscrire sama boobu affaire yooyu noonu. am na ñoo xam ne tamit dañ lay wax utal ma élève maay def seconde S li ma bëgg a doon moom mooy euh, secrétaire de banque jigéen ñu tey ñi waaw war nañoo lutter ci euh, seen avancement parce que parité la ñu wax ñu ne ni que fu góor mënee def benn jigéen war na faa mën a def benn ba ñaar ñooñu dina yomb ñu placer leen ak salaire yu baax parce que c'est rassurant trois mois yi nga bàyyi sa vacances yi ak say doom kenn koo xam ne dina leen mën gérer mais par contre ñi nga xamné mënuñ bu baax liggéey par exemple mënuñ togg nettoyer rek lañu mëne auto autres ñoy am problème pour am patron am na élèves xam duñ dem tabas am na xam tamit dañuy dem mais des fois dinañ ay problème ak patron yi parce que patron yi des fois plus bas ñi ñuy dem tabas te tabas dëkk bi am problème ñi naan dañuy ut ay jànk chrétien xam dinañ

waaw a euh, euh, kontaan sa saa am recevoir euh, la Sarène Lena. Lena, nag nga indil ñu lu nga xamante ne bi yaakaar naa ne aussi ñu waxtaanee ko parce que tout simplement vraiment sujet bi j'aime beaucoup il y a beaucoup d'élèves qui nga xamante ne bi xam nañ bon peut-être que les parents n'ont pas trop les moyens Nous avons vraiment di dans le ci biir kër yi pour am démarrer cette année scolaire et je trouve que c'est beaucoup de courage bon déjà y a maa ngi lay nuyu. di nuyu aussi euh, suñu invité. Mhm. Euh, li nga wax tamit euh, loolu moo am. parce que mhm. da ngay gis élèves yoo xam pendant l' année scolaire seen parents yi ñoom ñoo leen di fay li nga xam ne moom mooy scolarité. oui li si gën am solo li ma si gën a touché moom ni que ay jigéen lañ. te teewul dañu am full ak fayda parce que dañuy quitter vraiment seen domicile familial. Mhm. ñëw fii Dakar pour dans seen dolé pas pour euh, forcément de li nga xam mom moy ay yéré wala ay affaire yooyu. Mhm. mais pour euh, mën a financer ñom ci sen bop li nga xam mom moy sen seen fourniture ak sen inscription pour l'année euh, suivante ñoo xam ne dañu yërëm vraiment seen wayjo mhm. te ya xam man lima gëna allez interpeller si si euh, reportage bi. oui parce que bama démé demee di leen jël dafa am kenn ko xam mom daf ma mi ngi première S oui oui j'ai vu man nga xam ne <laughs> li ma doon bëgg jàng yëpp musuma ñeme es c'est vrai elle l'a def les donc euh, exactement donc lors de l'épreuve prouver ni que euh, fi mu nekk nii euh, ndaw yi ñu ngi gën di jël conscience ci li nga xam ne am importance maama moom mooy maanaam defar sa avenir ëllëg donc mu jaral leen ñuy ci daan seen doole mm-hmm. mais y a pas que les filles les garçons aussi ñu ngi koy def parce que jot nañu gis koo xam ne ne mom, day laveur alors que pourtant euh, il fait de très bonnes études. aussi livreurs euh, durant les vacances. Euh, peut-être job étudiant mais fille par exemple le plus souvent sama yenn morom yi moom bu vacances jotee dañuy préférer dem plage xam nga wala ñu dem euh, di di Bali wala des des trucs du genre mhm. mais là euh, ça a été euh, son importance ñu attirer attention ci li nga xam ne ni am na ay ndaw yu am fulla ak fay très bien en tout cas dinañ ñëw Lena ci les difficultés justement que ces jeunes filles et ces jeunes garçons rencontrent par moment ci biir kër yi waaye réaction monsieur Samb gis nga reportage bi vraiment euh, ñu ñëw ci vacances euh, bi nga xamantene bi tay nous lu ñu parce que comme nous ko xamé une jeunesse bu nga xamantene euh, vraiment amna ñu ak fayda bu nga xamné li ñu bëgg ci yenn dëkk yi ñëw fi ci biir kër yi di comme ni ko pour reprendre après jël vraiment le relais ci parents c'est un peu difficile pour eux monsieur Samb. waaw xam doy na waar te daw na yaram mm-hmm. boo gisee xale yu am jom jom moo andi lii waaw parce que bañ a sa parents yi wala du sargan bañ a sonal des fois mm-hmm. mais dafa lay wóor na sa morom yi euh, sa parent yi amuñu te bëgg nga tekki mm-hmm. nga ne man war naa dimbali sama ndey ak sama baay donc euh, école tëj nga bàyyi sa lépp dem euh, di daani ji sa doode foofu xanaa lu mu si yokk rek mooy daal euh, ñi nga xamante ne ñoom lañuy fekk ji mm-hmm. ñoo xamante ne ñi ñuy nekkal mm-hmm. seen doom la ñu te war nañ leen dimbali te yàlla tax parce que kii ñëw sa kër na la ah man damay ñëw damay war a jàngiwaat nga xamante ne muy ut pour fourniture la

fu ñu parce que loolu aussi nek na loo vraiment man sama bopp dama ko ji tiens parce que loolu mo waral même xalé yu ndaw yi ne fii du ma bëgg jamais au plus grand jamais ñu traîner man dana fi organiser les pendant les vacances euh, secourisme des enfants Xalé yi lay jël di len def le secourisme te secourisme boobu mo len def law rien que pour ñu bañe a dem def ji bien. te loolu man nañu ci sauver mhm. non seulement sen camarade de classe mën nañu si sauver seen parents yi et chaque fois yàlla def na am na réussite ay xale yu am 14 ans quinze ans vraiment bu ñu la defaree secourisme médecin assisté nañ ko dañ ne non lii xalaatuñu won na Sénégal. alors en tout cas ñi ngi lay euh, gërëm ci loolu parce que euh, participation la euh, ci Sénégal léegi ñu ñëw brosser tuuti les difficultés justement sànq maa koy wax que ces jeunes filles là et ces jeunes garçons di faral di rencontrer amna ko poser tout à l'heure le problème de la tabaski c'est vrai que c'est un problème léegi ñu bàyyi la parce que yow nag yaa démon ci ñom vraiment waxtaan ak ñom le problème ou euh, tabaski parce que euh, souvent les femmes am ño euh, de ménage en permanence ci vous faites bu fête tabaski dañuy faral donc ce qui fait que yenn dames sont confrontées dem yi wara de sen cœur am ku donc souvent ñom dañuy soxla vacances. Euh, mais dañuy dem des fois am na ñoo xam ne euh, dañ ci sceptique un peu pourquoi parce que surtout bu ñu yoree xale yoo xam ne à bâge la mm-hmm. euh, xale itam ñu dem ba miin ki nga xam ne moom moo ñëw étudiante bi léegi bu waree dem mu nekk benn genre déchirure donc souvent duñ ko soxla mm-hmm. léegi dañuy préférer jël ñi nga xam ne ñoom ñooy les les femmes de ménage chrétiennes ko defee mu nekk pour deux jours juste le temps que seen femme de ménage bu nekk fi en permanence ñibbisi donc loolu aussi mu nekk benn difficulté mais difficulté aussi comme euh, invité nous mhm. euh, souvent quand tu quittes chez toi. pour dem cœur euh, xam ne fay pas mhm. parce que yenn aussi doy bon peut-être amul forcément intention yu baax motax ñun tamit bu ñuy accueillir euh, nit ki nga xam ne dafa ñëw pour daan dooleem. exactement nañu xalaat ne ni que ku ci nekk mën nga retrouver wu dans pareille situation. exactement nga gën a delloo si sa xel aussi jàpp ko comme si yow sa doom boo jur la. parce que le plus souvent ñun jigéen ñi ñun ñooy jël euh, femme de ménage yi

<laughs> yaa xam man xam nga lan moom ma gën a def ay ree sa bande annonce bi. déedéet non yaa xam il faut que ñu jox la ay cours natation. Euh, monsieur monsieur Sam. pourquoi franchement yaa xam lu mu mënti jar man dinaa ko fayal cours natation. pour ah. mu jàng fay. ah dafa fay non yow. ah il faut nga jàng fay. <laughs> <laughs> cours de natation yi pratiquement même euh, daan na ko man suma cours c' est bénévole parce que dama koy def pour dimbali nit ñi lu tax ma ciy dimbali nit ñi mooy actuellement li xaw di njàmbat mhm. parce que ñi ñu suñu jàngul natation mën mhm. nañu ci dé wa mais parce que waaw mais nga bal ma monsieur sam mhm. amna na benn liggéey boo xamante bi bama gëna gën xalé nekk xale liggéey boobu ñàkk mën a fay moo tax fa té réussir ma ko je t'assure euh, hôtesse de l'air laa muy dëgg muy dëgg muy dëgg ah, loolu danaa ci ñew parce que lolu war nañu ko commencer déjà si école yi euh man personnellement école yi ne fii école bu nar fi damay dem les mercredis di jox ay cours ba école mais damay dem cours mercredi bu jot 6 sixième ba terminal et puis le bokk que c'est note. waaw en fait ça fait ça fait partie justement de leur programme. Euh, alors Léna une question par rapport à Lille par rapport à Ngor hein, monsieur Sam man deux questions rapidement. oui euh, parce que maa don doon déglu euh, avec passion li dans doon avec ak Maïmouna, mhm. si historique ou Ngor bi mais dama mhm. bëggoon xam le mot même Ngor fan le jógee. Léna Léna nag deenu Goré. Bonne ba ba ba tudd ba ne ba Ngor. oui monsieur Sam allez xam nga am na yenn yoo xam ne xamuñu ko eh, man sincèrement xamuma ko nag. Uh-huh. bon xam nga euh, loolu daanaka historien bi dugg na ci. Uh-huh. parce que man su ma waxee euh, euh, turu ngor lu ko andi am na ñu dàq loolu. parce que nee nañu ne turu ngor am na ñu ne turu lu ko indi uh-huh. mooy bu jëkkoon ñi fi jé fi jëkkoon a nekk. dañu ñëwoon fàq gor. bu ñu goree dëkk mais boo ñëwee bëgg dëkk. comme ngor lébu yi dañu yaatu mm-hmm. boo soo leen waxee ne dama bëgg dëkk rek ñu jàppale gor la la gor la la garab yi fi nekk mm. suñ la goralee nga sanc nga dëkk loolu am na ñu andi loolu axuma ah, nag bon parce que ah, comme historien bi jaar na ci jaar je crois que jaar na ci je pense que daal ngeen dugal ma si mbirum géej bi ak mbirum île bi waaw moo gënal mais quand même euh, on a aussi une euh, une autre version euh, en tout cas duñu def rek lu dul leena daal di lay sant di la gërëm bu baax a baax a baax euh, ça a été un plaisir en tout cas de te recevoir. merci ci li nga xamante ne bi moom mooy euh, Actu Vacances mu nekk lu am solo Lena. nga toog di suñu plateau kan ngay remercier Lena? Wa tay nak mom faw rek ma remercier ki nga xamne mom mom moom euh, habillé muy Coty Couture nekk Sicap Dieuppeul 3. Mhm. numéro de téléphone bi di 77 658 18 96 merci beaucoup ya Yaram. merci beaucoup à toi mbokk nak ñu ñew nak ci ben playback and ak l'artiste Diaw Diop tout simplement pour vous faire plaisir parce que nak euh, liñuy wax euh, vacances euh, mbokk yi musique da ci am solo lol te nak mu nek ko nga xamante bi momi tamit xewna ci jamono kon nak ñu and ak mom c'est parti en musique gaay ku am sa chéri boy Dan la koy waye maa la bëgg bii moo tax ma lay waye ku am sa chéri boy Dan la koy

sama luchum luchum sama lachum lachum tesa sunyue te ya mai tari la suratul ah astagfirullah nyawa bai mama no bi bala ya ai ni madege nyawa maris ke te ko bi te da ka no shishe kuso ko ne ata chul mo le je ka ai bua achaka acha wa ta chamba je ah foofu temps <laughs> là. loolu temps la. Wa mais attends attends di nga nga ak sunu téléspectateurs yi euh, xam nañ la et mais ci vacances yi nga peut-être un message boy lancer parce que nak ah, porteur de voix nga ñi ngi fi ci ay plage jeunes yi dañuy fay ñew ah ma bay la nga lancer un message aussi non. waaw tout d'abord damay euh, nuyu ñëpp ñi teew fii. Mm-hmm. di nuyu ñi nga xamante ñu ngi seetaan wax c'est un immense plaisir d'être là participer ce numéro bi bon message est un message de paix mhm. mais aussi de prudence parce que comme que ñu ngi ci plage pour ñu surveiller xale yi maintenant, j'ai maître mhm. nageur yi def mhm. tout temps nous avons fait yi ñu fo frais, parce que passer les vacances en famille aussi daf ci am solo pour que école bu en ko ku se faire. dara très bien euh, fan nga toll ci euh, carrière bi waaw voilà commencé nañ Yalla def na nañ single les Sénégalais l'ont bien accueilli. donc là on est en train de bosser sur d'autres projets. pour grandes vacances il faut ñu nous len ay affaires de doy parce que war nañ def euh, ay tournées le 15 bi war nañ dem euh, mais en dehors de ça nous ay show yu ñuy pour plage mais aussi ci biir vacances yi dinañ len un deuxième single pour xamante bëgg nañ mu yëngal Sénégal yëngal jamono. dina ko yëngal en tout cas ñi ngi lay souhaiter euh, euh, bonne continuation. merci yaa ngi wax Ziguinchor euh, j'en profite justement pour di nuyu képp ku nga xamante ne bii yaa ngi safo RTS de nekk Ziguinchor waaye nag suñu collègue ya nekk fële ca RTS Ziguinchor fàttewuñu waa Tambacounda. alors Lena yaa ngi naan ma bëggoon naa am question bu ma posé par rapport parce que dinañ ñëw bu ca kanamee ci les sports fii ci Ngor rapidement et puis après on va rejoindre notre ami Malcolm ci li nga xamante ne bii moom mooy euh, euh, électron libre oui. Malcolm nag laa fi doon bañ a fekk. <laughs> laa bëgg a fayu mais dama bëggoon juste euh, rapidement donc parce que ñu ngi ci doon jot waxtaan ak suñu invité. ci parce que dama toog sànq ma leen di suivre gis kenn kuy def kayak léegi ma bëggoon un peu pour ñu revenir si parce que dafa mel ni dafa nekk activité boo xam ne dañ ko fii def fii Ngor. Oh, kayak nekk na activité boo xamante ne à Ngor. Mhm. yaakaar naa ne champion Sénégal yëpp Ngor la ñu génnee. Mhm. Pour Jeux Olympiques, euh, si je ne me trompe pas, pour il y a 4 ans, mm -hmm. euh, Sénégal bi il est du village de Ngor. D'accord. Et dem à mon na ñaari final et final ñaar ñaari final je crois que très bien que quatrième bu ci 4 quatrième de Dillon. et même bu nous avons ñu am fi ay championne ay mhm. championne ay oui euh, bon champion, il euh, y a Combesec et puis. Euh, comment elle s'appelle encore bon, D'accord, le Nord reviendra. Il y a une euh, international qui est internationale dans le Djoyi. D'accord. Dans le Kitouabi, dans l'Afrique, ah. nous avons des médailles. Très bien. Mais malheureusement, que xam nga na lo xamante ne tellement Sénégalais mhm. mais man gis na seen médaille d'argent. Mhm. gis na seen médaille d'or d'or. Ah. ñu andi fi encore

suivre avec passion merci beaucoup. Inch'Allah. ça a été un plaisir Lena Moi qui nag du de def rek lu dul euh, dem xool euh, régie euh, dellu si waat sama électro libre bi tey di sama chérie Malcolm fan le fêter, fii ci plage bi nga xamante ne bi jotoon na fi jël nag wax dëgg ay lan la je sais pas si c'était des poissons ou quoi mais il va me dire où il est ñu dem régie dellu léegi nag euh, euh, bëgg naa xam sama xarit euh, Malcolm enfin sama Valentin disons Malcolm tu es où chéri waa chéri mon amour na ngeen def ak coono. waaw. <laughs> alhamdulilah taar kaala. waaw lan ngay def nii. ayca embarqué embarqué prêt à embarquer. ah. ayca ayca ayca ayca ayca na bara bara bara bara. ah. fu mu toll nii nag su mu toll nii sama yaram daa tàng. waaw salaamaaleykum. Mhm. nga may reeta ñàkk bëñ xam nga ne lii mooy lii mooy manque de respect. Comment vous osez, comment vous osez, comment vous osez sourire ça obligatoire, pour le gilet d'abord. Hein. Comment vous osez sourire ça là Oui, mais le port de gilet, il est obligatoire avant de traverser. looloo tax nak ma ñëw ci ñom wa parce que ñaar ñi ya xam. waaw. dafa baax Sénégal ñu xam sen liggéey bi ñuy def fi ci Ngor. ok damay bay rek ñu nuyo d'accord. waaw salaamaaleykum man la Djibilaye Diop. Mm-hmm.

Euh, waaw dafa amaat tamit dafa mel ni ñaar ñi am na ci ñëw de salaamaaleykum papa. maaleykum salaam. waa tur bi. boo dépassé cent dix kilos ay nante rek ñoo fi nekk danaa ci ñëw <laughs> ga gaa yi mu sëñ bi. waaw salaamaaleykum. ñu ngi lay ziar di la nuyu. di la ndokkeel di kontaan si si déplacement bi ngeen def ñëw fi fekk suñu fii si Ngor. fii lan moo fi seen liggéey. Euh, ñun ay transporteurs lañu ñu doon benn regroupement des transporteurs de l'île de Ngor. Mhm. mu doon ñaari famille yoo xamee ne benn lañu. parce que ñoom ay mbokk lañu. ay jarbaat ay kii lañu ay ndiyaay donc ñu bokk liggéey bi fii di jël nit ñi di leen traverser di leen yóbbu ci île bi. Mhm. suñuy kilifa nag mooy Libaas Seck ak Malibert Samb muy Libaas muy kii Samba mhm. waaw. kon gis ngeen ñoom seen liggéey ni mu mel ñu ngi leen di jaajëfal mhm. euh, di wax ni ñëpp ñi nga xam ne dañoo war a ñëw fii nii ci île bi mhm. waaw ñoom tamit nañu xam ne dinañ fi fekk ay professionnel sama gars yéen lan ngeen di nekk di joxoñ nii lan ngeen di joxoñ mm. bett naa la yow koy sàllar nikul kaay <laughs> man kenn duñu ma déedéet force rek waaw <laughs> looroon xool avion bi bi booy bi dërën bi la naan avion xanaa tiit nga <laughs> salaamaaleykum lébu yi na ngeen def ana lébu yi ana ah, lebu yi waaw li ci taw duma koy yeggali salaamaaleykum waaw dafa mel ni am na ñu ma seen ñu toog de grand da doon daw waaye feeñ nga tur bi naka la man euh, Alioune la Alioune lan ngay def fii dangay ngay ñëw pour traverser fi nga dëkk waaw ñu ñëw nekk fii si embarcadère bi quoi di aider gars yi ñuy traverser affaire yooyu quoi ah yéen tamit loolu moo fi nekk seen liggéey waaw ñun looloo fi suñu liggéey fii quoi depuis combien de temps yéen a ngi liggéey loolu di ci jàppale depuis l'âge de 12 ans ba léegi 12 ans fukki tu on est là surprise parce que surprise bi mooy mhm. xam nga man dama am rek waaw man dama am modestie dama kaay kaay Tu es bul fay bul fay bul fay <laughs> Les petits vacances yi. mais mais part que the fi am gis nga bo à partir de fi waaw moo nekk embarcadère mais gis nga feulé waaw la gars di mhm. n'empêche fofu non sapeur pompier ñu ngi fa. ñi nga xamantene ñoo nek maître nageur ñu ngi fa. Mhm. ñi dëkk ci pegg bi tamit dañuy bayyi xel fi ngir ay walum mhm. vagabond yi démé nonu uh-huh. di fi bañam a nak man xamnu ñi def. gis nga gal beulé waaw. dama la ko doon wax mais gis nga tour du monde. waaw dama ko def en deux jours. ah bon looy ree faal looy ree de dama leen di laaj lu ngeen di ree rek ah waaye man wàññiwu ma mooy wax sama aqulaay taala ngeen ne naa wàññ waaw dama ne xoolal tour du monde waaw ànd naag waajee def ko deux jours c'est vrai deux ans bu leen neexee tamit <laughs> sonalu ma indilu ma benn giite ngaas feete naa fa dem dellu si bu soobee yàlla waaye comme que yaa xam yaa nekk sama jongoma waaw Sénégal yéen ñii ñu seetaan yéen a ma bëggal seen bopp

Ah ben très bien. De toute façon, on a un maître nageur à côté et, je suis sûre que euh, Malcolm moom tamit euh, xam certainement war na a euh, ñi ngi gërëm de sant de baax ci électron libre boobu le euh, waaye di dalal nous, bu baax un baax que nous, je suis un kenn la ci ñun muy soxna que soxna dama koy wax bu sujet rek sujet rek d'accord d'accord Rama. Euh, maa ngi lay euh, encore une fois euh, di la wax wasalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu dañuy am mbégte lool te defe naa ne suma sax da nga xam ne saa su ne suma ma janook yow macha damay parce que nag suñu religion bi dafa neex de. xam naa loolu soxna yaax ma lay wax waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. di nuyu suñuy téléspectateurs yi ñuy topp ci tam tam vacances. waaye di la béral nuyoo comme saa su ne ni nga may dogalee ni may dugalee ci antenne bi moom. vraiment moom loolu dafa ëpp. <laughs> c'est un <laughs> la ñu am nag saa su ne buñ fi teewee waaye. Non, non, mais il y a gilet. Ah, ah monsieur Sam, mm-hmm. gilet, beaucoup de soleil, il n'y a pas de problème. Le gilet, moi, euh, vraiment, moi, sécurité, parce que moi, il est dit tout. Tout à fait. Lui, le pour moi, c'est gilet, au moins, maintenant, c'est porté 110 kilos. 110, kilos. ou un peu même plus. Hein. D'accord. Voilà, donc, il y a un danger euh, pour nous dire le coup. Donc, je conseille tout le monde.

nee na nañu jàngal suñu doom féey mais nañu jàngal suñu doom sax même ni ñuy yéegee ci fas kon kooku ah. teel nañu prévenir pour ñu mën a moytandiku kaay yi nga xamante ni fan yi vraiment bare na wax dëgg fa yàlla kon loolu responsabilité bi dañ koy delloowaat ci parents yi mu jaral leen même bu ñuy fay sax ñu fay seen doom jàng fay xam nga Ramatoulaye lii lay wax bu ñu jàkkaarloog yow rek macha allah di ci jëlee ay xam-xam nga xaw ma woon nekk sallallahu alayhi wa sallam wax na loolu waaye def naa ko te xaw ma ko euh, kon nag nañuy góorgóorlu ci njaboot gi di leen jàngal fay ndaxte bokk na ci lislaam wax euh, ñu fàttaliwaat ko rek alxuraanu karim macha allah rama lépp ngi ci. li ñuy wax rek saa su nekk yonent bi dafa nekk koo xamante ni moom mooy suñu référence. te jàngal nañu lépp macha allah. Mm-hmm. kon euh, saa su nekk rek euh, euh, dañuy fàttalante rek bu ko defee ñu gën a xam li nga xamante ni jàngal nañu ko buñ ci wéyee rek macha allah. di leen mën a dund dund bu dund bu tey ndax tamit kenn kenn tënkuñu tamit. Mm-hmm. tënkuñu ñu rek ci benn ci benn ruq boo xamante ni dañu tere lépp loo gis rek am na nuñ ko nuñ ko tëralee. kon am na ci yu bëri yoo xamante ni ñàkk xam moo koy waral. xam naa ni yaa. waaw dama lay bàyyi ñu dem rëji. très bien dem xool suñu élément wu tey rek. Daara Vacances daal di ñëwaat ci Daara Vacances. mbokk yi ñu dem dellu siwaat بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير

même bi may jang Angleterre xamni amna ay chaînes yu bare bare yu fa nek waye man BBC la tam won parce que kooku moy li nga xamni lu ñëpp euh, lu ñëpp mom ñëpp ko bok te ñun ñëpp ñoko mom waye sen seen tax ngeen bëgg déglu sama man may mursid bi may joxe orientation yi waaye Moustapha ak euh, nawlé gor yu mu andal ñom ñoo yore liggéey bi tigi ñom ñoo koy yore kon suñu àddoo rek doy na sëkk itam mën naa jël kaddu pour conceptualiser et contextualiser wax dans quelles circonstances la daara ji ñëwee ak lu tax ñu indi daara ji sam Cheikh Seydi mohammed Moustapha bi mu nekké ci diggu febar bi altine daf ma wo nima bayil xel xale yi dafa ko wax talata talata lama ko wax allah bo mu wuy ci borom ma gis ni tiaxla waye waaye ma bayil xel xale yi waaye waxuma nan lay baye xel xale yi maset moom nan lan ko bàyyee woon xel jàngal ko alquran jubbu ko Rufisque si góor gi Khalil Camara mu def si moom alquran ma ni xëy na góor gi dafa am lu ma cax naa bàyyee xel xale yi nin ko bàyyee woon xel moom ah daara ji ngeen ñëw tey nag daara kër Seydil Jamil la di daara joo xamee ni ci loxo suñu wayjur suñu kilifa suñu wasila di Mouhamadinil Mansour ibnu Seyyidil Jamil ibnu Serigne Babacar Sy ibnu Seyyidil Xaaji Malick Sy radiyallahu taala anhum ci ndigalam nag lañu fi tege ñun ñu bokk ci ñu ko jiite mu noon daara joo xamee ni macha allahu taala xale yi yaatu nañu lool ci góor ak jigéen jigéen ñi rek boo leen nattee 344 lañu góor ñi booleen nattee 430 lañu soo leen boolee ñoom ñëpp ñuy 774 ñi ngi fii ci daara ji di fi jàng. ñun nag jàngale bi ñuy jàngale daanaka vacances ak année scolaire ñoo yem ndax ñun dafa am programme bu ñuy doxal boo xamee ni duñu nangu kuy jàng si jamono arrêté jamono. nga dellu siwaat di jàng siwaat boo xasee ba tàmbali rek inscrire pour toujours la da nga fiy jàng ay at ba suñu programme jeex ci yow te mënul jeex wala boog nga xëy suba ni ah maam mënoon wax dëgg yàlla waaye dama nar a féete ji ci leneen loolu moo koy waral lu jullit mën a jàng ci kaw suuf alquran a ci gën moo war a jiitu ci xale yi leneen soogay ñëw tegu ci alquran jooju nag yàlla dafa dogal ñu am système boo xamee ni may ñu ko bunt bu yaatu moo tax ñun samedi ak dimanche la am ak vacances ak férié loolu nag dafa néew lool ñu xeeb ko lool ba tax xale bu nar a vacances sax dañuy xeex ak yow pour nga bañ vacances Ramatoulaye nak euh, kontaan nañ bu un ci reportage bi di nuyu euh, Sidi Jamil euh, bu si Malik way gis ne lim bi machallah takuna 774 way nak lama ci gëna neex ci ji inscrire c'est pour toujours te loolu sax mo wara Euh, boo gisee sëñ Cheikh wax lool macha allah maa ngi koy nuyu waaye may kontaan lool ci sëñ Mansour Jamil nga xam ne mhm. dafa kontaan lool ci teew bi ñu teew foofu ci daaraam euh, boo gisee mu wax loolu mooy ñoom am ñi nga xamante ni ñu ngi ci daara ji mhm. di jàng école dañ lay gunge bi ma fa demee rek mi ngi naan man am nañu 30 élèves yoo xamante ni dañoo dañuy présenté bac ñëpp am nañ ba mu des trois personnes oh. jour bi ñu demee di tourne reportage bi jour boobu la résultat BFEM yi war a génn mhm. mu ni ma ramatulaay fu ma toog nii maa ngi toog di xaar di déglu sama élèves yi candidats yi ma amoon ñuy def BFEM xam nga ñoom kon dañuy suivre élèves yi moo tax du ñu bëgg xale bu ñëw tey bu ëllëgee nga bàyyi mhm. macha allah gis nga nombre bi ni mu takkoo mhm. te eh, ni mu takkoo nii euh, nationalité bu ne mi ngi fa Ah. langue bu ne mi ngi fa macha allah. te boo ko gisee tey ji ci élément bi danga naan daara ji daara tiijaan la. Mhm. waaye nombre bi ëpp ay murit lañu. macha allah xëy na incha allah ñu ngi leen di. Euh, euh, préparer beneen focus boo xamante ni xëy na ci élément bi la dina indi yeneen leeral. Mhm. pour te dire ni la daara ji daara ji bu baax la boo xam ne nekk ci biir Dakar. muy Fass ku ne xam na ni. ci centre ville bi la nek macha allah. nekk dëkkuwaay bu yaatu boo xam dëkkuwaay cosaan tamit. nga xamante ni dafay jouer ci éducation wu secteur boobu. nga xamante ni secteur la boo xamante da fa bare ñu koy fréquenter. boo nee Fass. ñu xalaat lu ne mais macha allah daara ji dafa am rôle bu am solo mu koy mu koy jouer fofu ci Fass soxna ya xam. très bien sëñ Mansour. wax lu am solo. Je ne mu ni papaam lu ko toujours dafa fonk xale ndax nee na ñoom ëllëg ñoom ñooy yore te dafa am éducation eh, pour nit pour nit ki mën a ëllëg luñ ko dénk euh, euh, mu mu xam ni lii alalu askan wi la mhm. nee na loolu diine rek moo ko mën a def ci alquran rek moo ko mën a def ci te lu nit jàng lu baax alquran a ci gën kon jullit bi du ñu nangu mhm. ak loo mën a jàng da nga war a jiital alquran sa bopp nga jàng na nga yeneen xam-xam yi mhm. ndax yonte bi dafa ubbi mu yaatu macha allah mu ne na ngeen sàkku xam-xam donte nii da ngeen di dem ba Chine ndax ci na ya xam na ni mhm. buñ fay dem du alquran tax waaye technologie moo tax mu ñu mu joxañ ñu foofu xam nga sama waa ji kenn du moom <laughs> kenn du moom macha allah xoolal ban euh. année lañu la ñu joxan Chine nga xam ni toll nañ jamono joo xamante ñoom dañoo avancé avancement boo xamante ni sax mhm. dafa jéggi dayo kon macha allah kenn du moom alors euh, Ramatoulaye dañu naan la répétition elle est pédagogique waaye ci biir loolu machallah, monsieur Sam, alxuraanu karim lépp a ngi ci lii

Euh, daara islam moom dafa nekk loo xamante ne euh, lu ñu si mën a wax bari na mooy lu ma doon wax léegi parce que euh, déjà dañuy am question mais question bi duñ ko mën a yeggal xam naa seen temps yi mooy xat lool. Mhm. mais daara l'islam dafa ne déjà. Mhm. xale yi ma gis nii li wóor wóor mooy ëllëg ñoo fiy nekk ay cadre parce que l'islam ku mu jiitu sa dënn. Mhm. français daf lay yomb. anglais daf lay yomb. espagnol daf lay yomb donc mooy base bi.

alxuraan jiitu léegi nag waa Ngor fan ngeen ci tollu ci. Eh, ci mbirum daara vacances yi sori nañ ci lool lool lool lool mhm. parce que daara yi bari na Ngor. d'accord eh, Ngor cosaanu Ngor daan ko daara parce que ñii dañ doon jogee fu sori di mhm. jàng sa Ngor. d'accord di jàng sa daara jàng se xam-xam. Mhm. Ngor loolu te bu léegi ñi ko fu doon def seen set yi ñu ngi ko fiy def. école arabe yaa ngi fii dañu gë. yaakaar naa ne sax ne actuellement moo xaw a gën a bari école école maternelle yi. naa kay nu ñu si gën a jàppe mhm. gën ko yokk bu xale yi mën si gën a góorgóorlu. te daara bi lu ma ci mën wax encore su amee nii si cadre bi ñu ne ñu lu may wax toujours na luy xew di njàmbat xale yi suñu leen tee si daara yi moment vacances yi mais du ñu am jotu dem géej. muy sangu ji. di lab fofu donc nek na lo xamantene rek sauver na xale da lool la amon amoon ci. alors ramatoulay sauver na xale ci adina waye sauver na nit ci alakhirah waaw loolu lu am solo la parce que alxuraan soxna yaa xam boo gisee daara nekk loo xamante nit ki boo ko yu bëre du la du la yóbbaale daal yu bëre du du fees sa ndax déjà dañuy dañuy dañuy toj sa xol da ngay dëkk R plus 4. waaw euh, euh, seen kër macha allah ngeen nekk ay tubaab yéen a xam loo leen doon toog ci table di moom amul foofu. moom boo ñëwee da ñëw toog ci suuf. keneen yéen ñëpp ngeen toog ci suuf waaw jaaxal mm-hmm. Mm-hmm. loolu ci alxuraan rek laa la am. loolu rek foofu rek la am cest di nga gis euh, xale yu bëri bëri bëri. mais ku nekk la nga war a jàng yaa ngi koy jàng. ku nekk la nga war a jàng kenn mënu la wax lu mel na ba pare en même temps da ngay capté waale keneen ki la muy jàng. en général boo demee gis xale yi gën a tuuti noonu di fer iji. Mm-hmm. mais danga leen di laaj parfois ñu lay jàngal saar yoo xamante ni ñoom àggaguñ ci. seen mag yi koy jàng ñu koy dégg. <laughs> dañ koy capté moo tax ñu bëgg nga teel a yóbbu xale bi ñu teel ko cee nàmpatal mhm. ndax daara day indi ay valeur yoo xamante ni ci nit daara rek moo ko mën a def ci nit xoolal sëñ Mansour si mhm. bu làkkee tubaab rek nga nga ah xam ne ah du fàjjee doo nga dégg tubaab ak ah, yaa xam ah. dégg nga tubaabam yi mu làkk ah moom kaadar la de bu la mais fàjjee tamit kii na mën na de di nga xam nga faat dama koo lakkal su ma génnee mu mu dóor ma mais lu ma ci mën a lu ma ci bëgg wax rek mooy uh-huh. jàng daara du tere jàng français ano ah non euh, koy wax loolu sama doom alxuraan kese lay jàng na alxuraan bi jiitu na alxuraan bi jiitu ci dënnam nga ànd ak jamono nag na ànd ak jamono ah. ndax na nga na nga na nekk ci àdduna ba nga yaakaar ni da ngay fii sax ba faaw mais na nga nekk ci àdduna di jaamu yàlla ba nga yaakaar ni suba suba ngay dee mm-hmm. loolu alxuraan luñ ci jublu mooy àdduna lépp lu baax lépp lu rafet da nga ci war a góorgóorlu surtout jullit oto yu baax yi macha allah da nga a jàngal sa doom mu mhm. kenn du ko mën a nax ci dara très bien diina loolu la bëgg jullit bi mhm. dafa war a am ay maîtrise yu bare bañ a mel na ramatulaay comme féey ak euh, ak waaw bu ñu demee ba yonent bi naan na ngeen jàngal seen doom yi nu ñuy féeyee na ngeen jàngal seen doom yi nu ñuy yéegee ci kaw fas mhm. loolu ça veut dire que ni nit ki lépp lu ñuy jàng muy jariñ da nga ko war a jàngal sa njaboot très bien ndax euh, bu situation taxawee mu mën a sauver boppam très bien uh-huh. euh, dañ lay bàyyi euh, sa kàddu gu mujj par rapport ak tey li nga ñu indil euh, parce que am na solo euh, daara yi nga xamante ne bii dañuy ànd nag aussi non seulement di leen jàngal alxuraan mais di leen jàngal àddina. Mhm. parce que loolu tamit bokk na ci mission yi nga xamante ne bii sëriñu daara yi ñoom tamit sas nañ leen ko. Mhm. yaa xam sama kàddu gu mujj mooy daara yi ma fàttali leen waat boo gisee di bépp daara boo xamante ne nag war nañ ko ci RTS 2 nañu xam ni daara excellence la. ku yor sa doom na nga xam ni boo ko fa yóbboo sa xel na dal mhm. dinañ def ci moom alquran dinañ def ci moom ngor dinañ def ci moom dignité waaye dinañ def ci moom jomb ak rus hmm. li commencé ñàkk ci suñu jamono euh, loolu dafa commencé jeex soxna yaa xam muy ay valeur yoo xamante ni dañ ko war defaat suñu njaboot yi pour ñu mën a sauver ndax jamono hmm. euh, defe naa ni tëradi dina tëradi goo xamante ni hmm. soxlawul may toog fii di ko wax ñun ñëpp ñoo ko gisandoo kon defe naa ni daara yaa ngoog daara vacances a ngoog euh, soxna yaa xam vacances yi neex na nañu feet nañu kii mais bu ñu fàtte tamit nañu xam ni ay jullit lañu di leen dig rendez rek ci beneen Quand très bien kan ngay remercier vous maa remercier euh, samay dëkkandoo surtout waa gën nag. maa uh-huh. nuyu bu baax a ak di nuyu monsieur koy nuyu. Ramatoulaye c'est vrai que nag ci l'islam dañu ne gore. Uh-huh. gore euh, nañ ko ci doomu aadama. Uh-huh. Euh, loolu moo tax nag ngi Ngor. Euh, fas yéene ànd ak waa Ngor rek. Eh. continuer di gore ñu ngi lay eh. sant di la gërëm bu baax a baax eh. Ramatoulaye. macha allah jërëjëf yaa plaisir. Euh, justement monsieur Sam euh, ñu ñëw nag ci li nga xamante ne bi boobu ba léegi maa ngi koy laaj di ko laajaat parce que nag daf maa soxal. l'histoire de l'île de Ngor. dafa am solo sénégalais xam ko ak yenn mbóot yi nga xamante ne bi nous sommes des africains ci ñun la ne faaw nag RTS2 am lu mu ci cof parce que nag il faut pas que nag. ñu su euh, naka lañ koy wax su li yenn mbóot yi waaye nag dañ ciy cof tuuti pour xamal ñi ñuy seetaan d'accord euh, Île de Ngor moom euh, daanako cosaan la mhm. cosaan la boo xamante ne ñun ñu fi nekk dégg-dégg rek lañ si am moom ak suñu juddu day certes dëgg la suñu maam yi bu tey jii mhm. lépp loo xamante ne dañ koy def mu jëm si affaire wu ay tour ay ndëpp mhm. boo demee ci île ba ca gannaaw mhm. am na fa ay kër yoo xamante ne suñu demee lépp lu ñuy def foofu lañu koy defee d'accord voilà des fois sax danañu traverser nag yóbbu ko bu foofu ainsi de mhm. suite très bien donc euh, loolu daal laa mën a wax si euh, cosaan Elwi comme nu ma la ko waxoon sànq tamit. Mm-hmm. Mm-hmm. ne la man du ma Elwi bi ma koy xam. Mm-hmm. booba le fi newoon je pense très bien que ne bu matee sans maison def naa si lay toll. waaw léegi euh, euh, c'est-à-dire que dama gis aussi. que non seulement kër yi bëri na. waaw tamit gis naa ne. kër yi c'est devenu très moderne. am na ay kër ak étage yu mag et cetera et cetera. affirmatif donc si loolu l'a bëgg a jëm parce que ilbi bi ñu fi koy xam ñun. ay baraag rek moo fi newoon. Mhm. ñu koy wax ay kabano. kabano yooyu vraiment rafet taaru taar boo xamante ne. waaw mhm. ah, vraiment mooy woon aaru Ngor. waaw soo toogee côté bii da ngay seen côté benn garab yi bari mu naat. mais léegi garab yëpp ma amaana daanu na. Mhm. léegi ay immeuble moo fa nekk. donc vraiment côté boobu moom. dëgg neex yàlla bëgg naa lu neex waa Ngor lool. mais côté boobu moom franchement suñu île bi moom daf si yàqu. franchement les imams. c'est vrai que je me rappelle que boo est un mais là comme je l'ai dit, il y a voilà des étages peut-être que bon comme on dit que. Ngor c'est un village modernisé ah bon donc euh, ah ni village modernisé non, il aussi. Mhm. modernisé

bokk ak ñun sangukaay bi mu ay ay bar ay. ay ah. jaan ainsi mais amuñu amuñu ak ñun benn benn problème. Ah dañuy ñëw def li ñuy def wo ko waat. et bu ñu ah. ñëwee loolu loo ko mën a considérer kuy ñëw pour aar

wan nan lañuy ñuy sauver nit ko nga xamné day dafa lap maître nageur bi mu ngi daw day def chicken life def dolphin dive lii mooy chicken life li muy dawee léegi di moment ko muy daw day def plongeon pour mën xol victime bi fu muy fu mu nekk mooy nage d'approche bi muy def ni parce que day permettre victime bi mom mu mën ko gis parce que su fekkee dafa dugal boppam rek du gis victime bi mu war a mais bu dee piscine la mën nga def plongeon normal léegi di moment ko muy def nage d'approche bi si ba si moom dafay maîtriser victime am après léegi mu ngi si naaj jusqu'à présent si def na piqué canard voilà juste bu un piquer canard pour maîtriser la victime voilà exact maîtriser la victime Vous devez daf koy devez jouer def jour contre jour Vous euh, coup jouer ko comme ça mu respiration normale Vous devez def pédalage, pédalage pour nous faire la deuxième étape jusqu'à présent mu ngi pédalage. pédalage. Vous def jour contre jour en même temps actuellement comme comme am na pied day dox normal pour nous ñu la victime daal attaqué troisième séance bi moy manam defal ko bilan wa ki la wa wax sauvetage entre deux léegi deux personnes ñoo dem war ko mën yëkëti pour mettre ko à l'aise pour mën a dox ak mom génn am facilité. wa très bien mom lay def ni léegi day génne victime bi ba ci kaw su génnee victime bi après ñu mën ko défal bilan léegi pose bi aussi daf ci am solo ni ñu koy tegee. ak nu koy tëralee yëpp daf ci am solo parce que waroko ko mu am doole waroko ko mu gaaw donc da ngay def nank jël ce temps mën xol victime bi carrément ok maintenant génne na maîtriser victime bi na ko position juste pour faire bilan normal. lépp lu nga xam daf ko lu dindi li nga empêché dindi ko déjà dès maintenant bilan voilà dans un premier temps vous les trois fonctions vitales premièrement la conscience bi d'abord.

pour déclencher cœur bi def a na ko air mais ça ne marche pas Les tardé na poule bi aussi cœur bi ñëwul là. automatiquement a def massage cardiaque voilà ce qui est normal ce que tu defee fait, 32 première fois bi air bi ñu ko a jox 5 fois nga as jox nga dem automatiquement massage cardiaque mais 30 30 compressions, nga très bien Les victime réagissent actuellement donc léegi day contrôler waat mu vérifier xool ndax respiration est normale faites que la respiration bi normale mu mettre en PLS très bien la respiration est normale parce que contrôlé le voilà léegi da mettre en PLS d'abord voilà léegi nag dañuy dañuy def euh, alerte au niveau des sapeurs pompiers pour oo Nalen, alors allo bon dañu am un cas de noyade la plage Ngor bi léegi bon porte 1 ngay duggee mais actuellement nii bon defal nañ ko première ba déjà mu ngi réagir donc actuellement nii yéen rek la ñu xaar pour la évacuer. waaw dañuy euh, kontaan nag yéen ñuy seetaan euh, di recevoir la belle maman Dieye maman euh, kontaan naa recevoir la fille, ci plage Ngor bi te defe naa conseil pratique ba nga ñu indil boo def woon loolu tey dina doy waar parce que bu nu ne plage ñu ngi ci tefes gi. Euh, wax noyade d'ailleurs monsieur koy wax pas plus tard qu'hier de noyade alors ci biir euh, da fay aussi nit ñi n'importe qui et n'importe comment le ñuy sauver ko xamantene bi dafa tu wala da fay maman xam ngi lay nuyu mhm. di nuyu téléspectateur yi mhm. ñu conseil pratique comme ni nga ko waxé xam nga ñun dañuy top actualité bi rek. Mhm. te buñu waxé vacances dañuy wax plage donc fay baax ñu sensibiliser xalé yi nga xamante ni ñi ngi ñëw ci plage bi déjà ñu faisons aussi tamit ménageurs yi sen liguey mhm. parce que wax dëgg yalla liguey bu muccu ayib lañuy def bari na yo xamante ni du xew ci géej gi ñom sen euh, liguey mom moko waral mais nak comme ni ñu ko waxé la fois passée rek du tout le temps lañuy ñuy nekk ci géej bi mhm. nekkul ne 24 heures sur 24 lañ fay nekk donc li tax ñu def élément bi dañoo bëgg juste nit ñi xam technique bi nga le ni mom lañuy utiliser bu ñuy dimbalé ki nga le ni modi ki nga xam ne moom moo ndaxte comme niñ ko waxee tout à l'heure dafa nekk wax bu am solo nekkul ne da ngay gis ne nit ki dafa lab rek nga ñëw daal di def nu la neex pour bëgg ko sauver maa ngi koy wax bii passé nit boo demee ba nga xam ne da nga gis koo xam ne dafay lab bu conscient we rek nga ko mën sauver te boo sauver aussi dafa am technique boo xam ne nga war def sinon nga woo sapeur yi ñu ñëw parce que nit du avancer si lu mu maîtriser wul mhm. soo gisee nag ñu waxtaan ci xam naa dinaa ci ànd ak waa régie mhm. ñu wan ñu incident yu bëri yi nga xam ne jur euh, géej gi mi ngi koy jur parce que gis ngeen ne que ne at bi ni 21 cas de noyade am na ci. Mhm. Euh, récemment rek euh, fee nga xamanté modi di way weekend passé quatre personnes gañu nañu. te ñom ñëpp ay xalé lañuy doom. Mhm. âgé de 16 ans. Mhm. et 18 ans. donc day doon ay catastrophe yoo len ni ñun lépp luñ ci mëne rek pour sensibiliser xalé yi. dañu koy def. bien vrai que ne nak il faut que xalé yi xamné dafa am ay place yo xamante kenn autorisé wu ko. dëgg la. c'est malheureux nag mhm. place yi nga xamante ne la nii autorisé wuñ ko foofu noonu xëy na entrée bi c'est pas payant da ngay mhm. ñëw rek nga dugg mhm. te ñoom aussi selon seen moyen rek la ñuy demee ak seen bëgg-bëgg mais euh, boo ñàkkee moyen aussi nga gis ne que ne fii boo fa demee sa bakkan xa mi ngi ci xotti gerte dafay am limite parce que géej aussi amul banqaas donc boo mënul fee dafa am foo war a mën a yem dëgg la donc nga fa sangu li ngay sangu ab xëy nga génn ndax tamit bu

Euh, dafa nek deug alors justement nak euh, euh, maman yaa ngi dend mhm. ak ko xamantene bi professeur maître nageur ah alors ni nga ko waxee dafa lu parce que monsieur La plage yu nga parce que cette plage elle est quand même autorisée C'est la plage de Ngor mais amna plage yu nga ce sont des plages non autorisées mais les gens se débrouillent comme cas bi am quoi quoique c'est autorisé mais dañuy xaar ba guddi donc ce qui est sûr et certain c'est que bala secours di ñew problème fay am alors nga ñëw ak ñun nak euh, ci justement ni euh, nga xamantene bi sauver euh, ces de dama gis dama dégg canard mu ay technique yi nga bi mais découvrir nañ ko ak maman euh, déjà suis grand élément bi jàll le Maintenant nageur yooyu dans def sauvetage. mo mhm. xool ko lépp jaar yoon. je la su on woon je dama tout à fait et def sama école. ah très bien sama école mhm. donc mais le vraiment. Mhm. comme nous dès le départ chaque année damay dem recyclage su ma ñëwee def recyclage su ma recyclage boobu en Europe ñëwaat jox leen technique yu bees très bien Pique canard mooy lan waaw piqué canard moo di ne boo fayee bu yegg si victime bi le fait que nga jiital sa bopp ah. pour dem si souff pour jëli victime bi loolu la ñuy wax bi mais loolu suñu koy def day fekk victime bi yegg si suuf bu près ah. parce que dafa am loo xamante ne loolu mën na ñàkk des fois mën na nekk man na mën nekk comme man na ñàkk. Mhm. des fois nag bon nit ñi dañuy utiliser terme yoo xamante ne bon peut-être que fu leen neex ñu dugal ko fa mais dafay dafa dul nekk place am. ok voilà donc piqué canard loolu su la am il faut que victime bi def agitation bu près appel des secours bu commencé couler bu couler nag ba nga xamante ne yow mënatoo ko jàpp foofu ngay defee sa piqué canard. pour mën ko fekk si suuf piquet canard moo yëkk sa tànk sa boppay dem suuf nga ronu ko pour mën a jël victime boobu xam naa ne maman yow ko war a mën piquet canard nga de mën nga fee est-ce que man de mënu mënuma j'avoue et dinaa ñëw seet si monsieur Samb ak ak ñeneen ñi ñoom Khady Didi

jàngal seen ay dom mhm. ndegam ñom il faut que ñuy ñew ci geej bi li ci dess rek moy ñu jang naka lañuy feyé mhm. ku ci mënul fey aussi tamit bo ñewé ci geej nga dem nga xol ménageur bi nek fofu noonu mhm. nga laaj ko yow fan nga wara yem te encore une fois ñuy wax aussi tamit responsabilité état bi mu jël ko parce que tamit kay euh, plage nga xamante autorisé wuñ ko pour man war nañoo tëral ay yo xamante mom moy permettre nit yi ñu fa dem di sang wa mais mais maman euh, j'en discutais euh, pas plus tard que hier ak ken mhm. mais c'est très difficile ça dit dire que Plagie c'est des kilomètres et des kilomètres mhm. mais je pense que c'est une éducation monsieur Samb ça mhm. à dire que ce sont les gens qui doivent prendre conscience que fii interdit nañ ma ko ne surveiller jusqu'à jusqu'à une certaine heure mais je veux dire mon nañu ay policiers wala ñu def ci ay barrages tamit nit ñi ñoo wara tamit am une certaine conscience man vraiment lu ma parce que période tangay la ñu né et puis plage dañuy wax plage interdite non non plage interdite amoul. ok non non non le, maintenant interdite de baignade. de baignade oui voilà mais accès sur la plage mon, mhm. kenn mon aille. et puis policiers gendarmes, gendarmes, mais gendarme gendarme yooyu mais mënuñu que plage comme nous ma croyons euh, parce que damaa jàng ci ñoom. Mhm. et chaque année comme nous ma croyons, Madame ma dem euh, si vous euh, fu mel ni Marseille wala Toulon des recyclage.

parce qu'à partir de 19 h les maîtres nageurs nuit génn tout ils ñuy fay ci bi. Mhm. bu leen génnee après su leen après ñu même fait sax da ngay gis bon dañuy fait di ainsi de suite. Mhm. comme bon mandi. Ah cas yi fi jël yëpp guddi man dama si yem man di le matin le matin man lañuy wo. après sama équipe bi génne ko mais dafa ne suma ma demandé renseignement c'est parents en question ñoom wax na ma ki dafa mandi won. d'accord donc euh, nit warul man di mandi di dugg ci géej bi donc lolu moy ci cas yi ñu njëkk conseil et puis donc sécurité man lu moy moy gëmuma noir pourquoi gëmuma noir c'est ça lu tax gëmuma noir parce que jang du fi nit man nga ñëw boo jàngul football du la tax So dee. Mm-hmm. soo basketball du la tax mm-hmm. mais boo jàngul natation mais mën na la rey mais pourquoi pas duñ jàng natation. et puis comme lu wax léegi les mesures de sécurité bu ñu ko jëlee déjà à 90% euh, réussir nañu déjà.

considère yi jeexagul yaa xam te njortu nañ ne que ne xale yi ñi sétal li ñu leen di sensibiliser ñi ngi koy dégg parce que wax rek tamit la nit ñi mën dañuy dem ba nga xamné problème d'éducation moy posé wu té lool aussi tamit ñom ñoo war a ñu dugg seen ruqumanakan ñu yeddaat seen bop parce que tamit ku dee aussi yaw ya ñak ah. donc il faut que ñu conscient ci loolu noonu mm-hmm. ginnaw lool aussi tamit mu am lu tuuti rek lo xamné bëgg na ci dugg ndax bu ñu waxee vacances aussi dañuy wax ne que ne xalé yi tuñu mm-hmm. nekul géej gi rek mom moy danger mais ci biir kër yi aussi parce que tamit malheureusement pour Sénégal li nga mhm. xamné année scolaire bi dang koy tamou di def mhm. bu vacances ñëwee do ko changer mhm. da ngay teg lu nekk à la portée de tout le monde manam nga teg li nga xamné mom modi eau de javel bo xooj nga teg bouteille bi fofu waañ bi ngay toggee nga bàyyi gaz bi noonu muy tàkk xale mën na fa dugg surtout xale yi nga xam ne ñi ngi nekk jardin ak yooyu noonu di dugg ci frigo yi di may seen bopp ndox mhm. muy jur ay incident yu bëri yoo xamante ni leen nii c'est malheureux mais parents yi ñoom ñoo war a xam ne vacances su jotee mhm. xale bi jàngeetul mi ngi ci kër gi mhm. donc lépp li nga xamante ni leen nii mën na tax mu gaañ ko wala dafay nekk danger ci moom ñoom ñoo ko war a déplacer ñu denc ko foo xamante ni leen nii du nekk euh, ci euh, bëtu xale bi ba mu mën ko gaañ parce que dama ci gis kaa boo xamante ne daf ma xaw xaw metti torop ondu javel bi xalé bi jël ko nan ko oh. te mënoon na ñàkk donc ñuy sensibiliser juste euh, parents yi mhm. ñu bayyi wat xel ci lolu noonu du ci geej gi rek mais kër yi aussi nañu duggaat ci ruq yi ñu xol mhm. lepp lo xamné mën na gañ xalé ñu déplacer ko denc ko ba vacances yi jeex te même aussi bu vacances yi jeexee aussi lu bari waruñu ko tek ci porté xalé yi même garab sax da ngay gis mag garab bu muy nan musani sànni fa fu ko neex xalé bi mën na ko jël sax mu nan ko wala mu utiliser ko te mhm. lolu aussi tamit mën na indi lu bari ci santé xalé bi donc ñu bàyyi ci xel en tout cas maman contane euh, nañu ci euh, euh, conseil pratique yi ñu jox ci walu géej gi waaye tamit ci biir kër yi da fay am solo parce que nak vacances yi xalé yi dañuy am temps bu bari bari bari kon nak nañu jema xol nak lañ leen di occuper aar leen yal na yàlla aar njaboot ak fu mëna né a maman ñi ngi lay remercier kan ngay remercier maman esprit chic waaw xam nga ne esprit chic laay remercier Fat Sané sama copine dëkk boobu nga xam ne su ma xawee jekk tuuti moo ci jàpp donc numéro téléphone am di 77 653 79 26 waaw moom la euh, très bien en tout cas jàpp na ci bu baax a baax RTS2 mi ngi koy remercier euh, mbokk yi nag euh, ñu daal di xuus ci émission bi ñëw ak ki nga xamante ne bi mooy suñu xarit Khady Didi dafay ñëw nag ak ñun ci météo parce que nag mool yi tamit

waaw sama xarit xarit yi di la Saint-Louisienne euh, bi nga xamante ne bi ah dañu war a ànd fii ak ñoom Fatou Dieye ak ñoom mama pour pour jàng fay te loolu nekk na lu doy waar waaye xadi doy na waar de maa ngi lay nuyu nag xaw ma fone waaye daal bul jege côté géej gi rek nga dimbali ma dégg nga. waaye maa ngi si tefes gi <laughs> bàyyi ma nekk ci tefes gi moo gën a wóor comme man mënuma fay daal bàyyi ma jàpp ko ci tefes gi rek gën. <laughs> nuyu naa la. maa ngi lay fay Khady. nuyu ñi nga bokkal plateau. ñu ngi lay fay. waaw léegi nag euh, ñu dem ci prévision météo euh, jeudi bi. waaw. fii si Dakar nag suba si dinañ am 26 degré. Mhm. bu demee ba diggu bëccëg bi dina nekk 29. ngoon si ñu am 27. ba paré asaman bi dina xiin lool. Mhm. ñu dem Diourbel Diourbel tam matin bi dinañ fa am 25 degrés. diggu bëccëg bi nek 34 ngoon si nek 27 fofu nak dina taw. ñu dem Linguère Linguère matin bi ñu am fa 26 degrés. bu démé ba midi mu nek 36 soir bi nek 28 fofu tamit ya xam dina xine mhm. ñu dem Saint-Louis On tam ñu am fa 26 degrés ci suba bu demee ba diggu bëccëg mu nekk 29 ngoon si nekk 27. ñu dem Kaffrine Kaffrine tamit matin bi nekk 24 degré midi bi nekk 33 soir bi nekk 27 foofu tamit dina xiin lool. Ziguinchor matin bi ñu am fa 24 degré midi ñu am 28 soir ñu am 25 dinañ fa am tamit taw ñu dem Matam Matam Tamine, matin bi ñu am fa 27 degrés. bu démé ba diggu bëccëg mu nekk 35 ngon si nekk 31 donc Matam dina tang lool ya xam si guddigi. très bien. ñu dem Kédougou Kédougou ñu am fa matin bi 23 degrés. bu démé ba midi mu nekk 28 ngon si nekk 24 Fofu nak ya xam orage lañ fay am. Ah. ñu dem Thiès Thiès matin bi nekk 25 degrés. bu démé ba midi ñu am 32 bu demee si ngoon si mu 27 kon foofu ngoon si dina xaw a Kolda matin bi nekk 24 degrés mhm. midi bi nekk 29 soir bi nekk 24 ak orage tamit ñu dem matin bi ñu am fa 24 degrés digu bëccëg bi nekk 28 ngoon si 25 ak taw ñu dem Kaolack matin bi ñu am 25 degrés midi bi nekk 32 soir bi nekk 27 nous dem Tambacounda faire yow choses. xam. matin bi 24 degrés, mhm. midi bi 30 mhm. soir il 26. une xam fii ak yow météo. très bien ñu jàpp ne rek ba tey Dakar gisaguñ fi taw. waaw ay niir daal moom dina bëri ak ay wicc wiccal. très bien. Mhm. Euh, Khady. waaw euh, demal ca géej ga mais mën ngaa dugal sa tànk de parce que baax na xam nga dafa am ay ferñeent yu ci nekk monsieur Samb wax na ko jàllal ah. ca géej ga joxeel sa kii noonu nga jàll ca géej ga bu ko defee dugal tànk yi rek. Ah, tànk yi laa la sant. la ca des nag waxuma la ko kon xaaral ma dem. demal noonu nga dugal ah, tànk yi ah nee naa la ndar-ndar nag bu ñemewul ndox moom fii la am. waa mais yow mënoo dugal tànk yi rek mënoo ah lu ci am daal yaa koy gérer. waaw léegi dugal dugal nga tànk yi ma xool wax na la lu ci am daal. tànk yi ah wa toy na de. wa jam a ah, gis nga ça c'est très bien waay. léegi est-ce que waruma def comme ni Malcolm defon sank a ah, de ëpp na def. wa bàyyi ma plonger waay. jappale ma bu bax merci beaucoup khali <laughs> de rien alors c'est un plaisir inchallah de te retrouver euh ci euh, euh, benen euh, bulletin météo parce que dese nañu vraiment benn fan mbok yi fi ci Ngor. Euh, ñuy euh, kontaan loolu euh, vraiment monsieur monsieur Sam di la bàyyi nag kàddu yu mujj yu nga xamantene bi nga baxé ñuko parce que nak wax deug yalla liggéey bi ngeen di def dafa nek lu am solo di jàngale secours vraiment di jàngal nit ñi ñu fey mu nek lu am solo ñoo ngi vraiment aussi ci accueil bi ñu bi ngeen ñu defal fi ci tefes gi il bi nek côté beulé

encore plus proche de vous la ñu wax ñun dañuy dem ci suñu population di leen jege bu baax lolu mom lolu mom parce que bu jëkkoon euh, télé bu fa daan dem bo ma ngi def émission 18 d'accord voilà donc tay bu ma dellu c'était avec RTS 1 légui deux ñëw vraiment donc euh, sant yalla alhamdulilah euh, donc lu may wax rek moy nañu yobbu xalé yi euh, comme ni ko suñu yaa Seyda waxee mhm. l'islam moo ko jëkk a il faut xale yi jàng fay tout à fait ñun fii Ngor bu ñu ñëwee sécurité rek mo fi am mhm. muy côté île ba mel y' assez de ménagères d'accord côté plage fi ya y' assez de ménagères mhm. pour dem île bi aussi vraiment sécurité bi doyno d'accord euh, donc euh, nañu ñëw ñu jàng sé en plus duma ma li nga xamantene ne si lay yëngu muy

te lii si am solo maa ngi jéggalu encore mhm. xam naa mag gàttal tuuti rek tuuti tuuti tuuti mhm. tuuti li si am solo mooy mag ñi dañuy jàmbat ay rhumatisme yu xaaj yu demee noonu mais yooyu nekk na loo xamante comme yi euh, ferñeent yi ma la wax si teeloon léegi sànq mhm. yooyu soo ñëwee pour problème mu yàq du ci man déedéet géej la aw luñ fi ñaanoon day jaar sa poor dugg sa yax yi et puis yokkar la cartilage yokkar la leneen ak la lu leer laa la wax lu ma parce que fii je suis tous les matins avec des médecins lu leer laa la wax léegi man dama lay wax de waay ci RTS 2 nga ko waxee de maman yaa ngi dégg de non man ragal naa ne nag maire yi bëri ak paa yu bëri di nga leen gis de. non li li fi na sax yaakaar naa dafa bari déjà. mais am naa sama benn collègue boo xam ne. <laughs> waaw bëgguma tudd turam <laughs> moom xam na boppam. moom vraiment. man maa ko fi indi personnellement. na na nañu ñëw nañu ñëw danañu wàññi yaram ah? danañu wàññi yaram ku bëgg a wàññi yaram ku bëgg a yokk yaram. d'accord ñu la yokkal yaram. et puis santé bi kenn waxatu ko. yàlla ñuy dimbali ku bëgg dindi nag biir nii bi loolu yëpp. yàlla ñuy dimbali buu

yow yaa ñu ci doy. waaw demal nga toogal ñu foofu. Mhm. nga wax donc euh, vraiment manuma pré te aussi remercier wu ma leen. ci monsieur le maire voilà monsieur le maire waa Amadou Gueye voilà, Alors, monsieur le maire loolu donc merci beaucoup encore monsieur le maire si opportunité bi nga ma jox. merci monsieur le maire RTS2 aussi mi koy euh, remercier parce que euh, jàppale nañu tamit pour ñu mën installer installé wu fii euh, maman maa ngi lay santé encore une fois di la gërëm xam naa ne nag dañuy jaar ci ruq rek am waxtaan bu ñu seq ñun ñëpp ak équipe bi yëpp bu ko defee ñun tam ñu mën ñëw ci aquagym parce que euh, don don léeg-léeg dañu koy soxlo da am na solo wi mama merci non non dañuy ñëw dañuy ñëw <laughs> incha allah juste rek wax ko ne nañu wàññi entrée bi waaw su ko defee nag mu nekk à la portée de tout le monde ñëpp mën a ñëw ci plage bi très bien waaw 300 yi xaw na takk wàññi leen ko tuuti rek pour entrée bi <laughs> mu gën a accessible 300 <laughs> yooyu 300 yooyu c'est juste xam nga plage moom dafa am réalité gis nga su dul woon 300 yooyu vraiment plage bi du set parce que ñit ñi suñuy ñëw kuy ñëw di nga anduwaale 5 kilos de de de de papier mbalit mais gis nga le matin soo ñëwee à 7 heures nga gis mbalit bi ak boy yi bu ñu koy nettoyer mhm. mais loolu moom la ñuy jël pour man ko delloo xale yi ay bénévole alors pour ñu nettoyer ko aussi y a des ménagères bénévoles yoo xamante ne ils sont au nombre de 10 ñooñu aussi ñooy renforcer plage bi il faut si loolu lañ leen di joxe loolu rek moo ko waral mais du fayeku donc contribution rek la fi la kenn fayeku fi contribution euh, c'était à souligner euh, vraiment euh, may gërëm di sant bu baax a baax képp ku nga xamante ne bi yaa ngi nekk fii ci Ngor encore une fois képp ku nga xamante ne bi yaa ngi liggéey ci tefes gi képp ku nga xamante ne bi transporteur nga euh, di remercier encore une fois ñi nga xamante ne bi sànq euh, def naa benn balade bu bu neex waaye macha allah euh, ci biir géej gi mbokk yi maa ngi gërëm toutes les équipes techniques yi nga xamante ne bi saa su ne dañuy ànd ak ñun di liggéey ñu ne le groupe RTS bu ñuy génn dama koy faral di wax ñun ñëppay ànd kon nag di sant bu baax a baax a baax a baax mbokk yi di remercier monsieur Racine Tala directeur général de la RTS ak ay directeur di beral nak ngeureum suñu directeur euh, monsieur Omar Ba way nak di contane di ñaanal bu baaxa baaxa baax ki nga xamante bi euh, moy suñu responsable di madame Fatou Dieye ndax nak euh, fuma ma sama pantalon yi parce que ci géej gi laa duggoon mu wag bossam lolou moy nañu andono ñun ñëpp ñu liggéey euh, RTS2 c'est notre bébé et bébé bi nañu bëgg mu màgg dans de très bonnes conditions euh, Fatou merci beaucoup merci à vraiment tout le staff euh, chaque fois suma limé damay xawa a touti wayé damay jël aussi comme toujours rek di cof ay tourner. rek parce que amna ñu nga xamante bi aussi vraiment doux, nga xamante bi mom bo ñëwé li muy def rek moy daf lay daf lay lalal encourager la ne la demal ñoom Ablaye Mar waxon nako ko euh waaye ñom Pape kan aussi di euh, remercier aussi Aimé Silva nga xamante mom tamit euh nek na réalisateur Ami Collé tudd naa ko keroog euh, Massayer papa la euh, moom itamit ñoo ngi koy sante di gërëm Saba si Faye léegi nag ñëwaat ci ñenen ak ñenen inshallah ci yeneen gox parce que nak dinañ des suba Inshallah, euh encore fi ci ngox ci benen gox ci ngox way dinañ am yenen nous ñuy doxal ci tam vacances mbokk yi may gërëm ki nga xamantene bi nag euh, moom mooy euh, Latifa mi jaar ci petite tête bi 77 639 69 41 en tout cas ça a été un très grand plaisir euh, d'être avec vous encore une fois ñi ngi profiter ci plage de Ngor ñu fàttali à une certaine heure c'est pas interdit nga ñëw toog mais c'est interdit d'aller nager parce que s'il y a un problème on ne peut pas vous aider mbokk yi we love you too much RTS 2 di ànd ak yéen saa su ne di canal 5 bu TNT je vous souhaite à tous et à toutes une bonne suite des programmes sur cette très belle chaîne au revoir.